Masu 저거 저거 저거 주세요. 맞다니까. internet yi gis tey mu xaalaa seet si woon fii si Gueule Tapée muy joxe ay ndogu muy les bienfaits du Ramadan nee naa ko nag à chaque fois da nga daan woote ndogu bii mooy sa quatrième édition mais da nga def lu spécial da nga def loo xamante ne ñëpp a ngi koy rafetlu muy dugg ci hôpitaux yi dem nañ Dantec dem nañu Elisabeth bu nekk Gueule Tapée mu xaa nag laay dékk sama micro borom chamboulé ziar naa la. delloo ziar bu baax Abidjan. Mouha borom borom Sorano borom événement yi l'homme bi nga xamante ne moom dafa événementiel. waa sant yàlla rek sant yàlla bu baax sant samay waajur bu baax a baax sant waa Gueule Tapée waa Ndakaaru di sant sama équipe bi ma àndal yëpp boobu ba léegi semaine bi yëpp maa ñoom di sant ñëpp bàyyi ma kenn di sant maam Fatou bi waaw borom kese boo traiteur mi nga xam ne moo defar lekk yëpp sama ñoom yaay ñëpp. Mouha ba ñu jógee Sorano. Euh, yàggul dara chaque année ngay joxe ay ndogu mais bii da nga def loo xamante ne spécial la dugg ci hôpitaux yi dem Dantec jóge Élisabeth bu nekk Gueule Tapée mu xaa kamoo ne si ginnaaw ak ku lay conseillé. waaw sant rek ñun moom amaana ñun ay ndaw lañ quoi mais xëy na li nekk fi am na loo xam ne waaw yàlla jox nañu ko daal mais sant yàlla bu baax ndogu am na ñu ko doon defee trois ans yi nga daan def si biir koñ yi bâche ko quatrième année ñu jël am initiative jël yóbbu fas yéene nga yi. dëgg la ndogu si koñ yi baax na trop mais ndogu ax ñi koy yeeloo am ñoo xam ñu ngi si hôpital tëdd tey bi ñu demee hôpital ku nekk gisal nga sa bopp li fa fa nekk kenn du wax kenn li xew foofu mais sant yàlla bu baax a baax kenn new suñu ginnaaw suñu borom amaana ñëw nañ si Sorano bi suñu borom am na lu ñu fa jox si loolu la ñu jencoon 40 pour cent lañ ko jencoon suñu poche doon xaar bés bi moo waral bés bi tey ñu ñëw jël lépp këpp ko si nga laal social nee nga ma même bu dul euh, koor sax yow da ngay dem hôpitaux yi di seet maladie Mouha euh, lan mooy sa secret aussi. waaw dara billaay walaay man moom maa ngi nii rek ndaw rek barke sëñ Bamba maa gën a tuuri si gars yi mais sant yàlla bu baax rek. tey ba nga duggee hôpital gis maladie nu ñu tëddee euh, xale yu ndaw yi pédiatre bi dugg nga fa aussi lan nga yëg. waaw billaay walaay yaram yëpp a daw gars yi ji ñëpp seen yaram dafa daw mais man amaana miis naa ko ndax chaque hôpital maa ngi ay chaque samedi mais sant hôpital gis nga Payaar moo mel ay xale yu ndaw yoo xamante ne defuñu suñu borom dara loo xamante ne war nañ leen mën a teg feebar boobu noonu mais sant yàlla bu baax a baax a baax moo tax ku si nekk nekk fii taxaw di jël ndogu war nga sant yàlla parce que fee ne ñi fa nekk ñu ngi tëdd mu ñu sax yëkkati seen loxo pour jël ndogu Docteur ñoo ngi lay ziar. waaw ñu leen di dolli di di di di leen fay. tey ñu fekk euh, sunu frère Mouha di joxe ay ndogu di ko distribuer si hôpital yi muy les bienfaits de Ramadan loo gisee loolu. waaw tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Mouha si vraiment si geste bu rafet bi bon j'ai nag au nom de de tous les médecins parce que defe naa man bii mooy quatrième édition moo fiy fekk. te à chaque fois d'habitude sama garde lay tombeel parce que l'année l'année passée boo ma fi nekkee aussi sama sama garde la tombeel quoi mënuñu lu dul rafetlu geste bi parce que c'est pas évident na nekk jeune et puis di entreprendre ces genres d'initiative euh, initiative boo xam ne vraiment lu baax la surtout si weeru koor bi ngay dimbali ay ay nit di joxe ay ndaw defe naa mënuñu lu dul sant ko quoi si si si geste bi quoi geste bu rafet bi ndax mënoon na ko defee neneen mais hôpital yi lu choisir lan koy dénk bon lu ma koy dénk rek mooy fu mu fu mu téye mu bañ ko bàyyi et puis euh, yàlla di ko suturaal ba chaque année lu mu mun tey lu mu mun ren déwén mu mun lu ko ëpp parce que defe naa doo demee ba choisir hôpitaux yi defe naa am na loo siy séntu parce que surtout euh, centre centre yu nekk surtout centre bi Gueule Tapée n'importe quel malade niñ fiy gis avec des niveaux des niveaux sociaux différents am ñoo xam ne ñu ngi fi mais pour ñu jënd pour ñu matal seen ordonnance sax problème la donc euh, voilà donc moom mu ñëw choisir euh, hôpitaux yi di si di si daf lu baax di dimbaliwaale malade malade yi ak askan bi vraiment nag Euh, bu mu ko bàyyi daal loolu laa ko mën di di sant quoi. tey ñu fekk leen hôpital Elisabeth bu Gueule Tapée mu xaar di def bienfait di Ramadan choisir nag hôpital yi Dantec la ñu jógee tey ñoo ngi fii hôpital Elisabeth nan ngeen gisee loolu. waaw xanaa kay di ko di ko rafetlu rek parce que déjà sante moom bu ñu ko waxee avant tout euh, c'est le social waaw. te Ramadan aussi occasion la boo xamante ne bii ñu bëri dañ ciy profité pour œuvrer dans le social. donc bu choisir les hôpitaux muy def foofu euh, ay ay ay ay ay ay dons donc loolu aussi day day day day rejoindre sociale sociale boobu donc nekkul lu ñu lu ñuy rafetlu xam ni ñi ngi koy ñaanal donc mu mu gën a yokk li mu ci comme bi mooy quatrième édition ni ko kii waxee woon man moom c'est la première fois bu ma fiy fekk ah mais quand même nuru na ni am na réussite quoi waaw parce que comme c'est la quatrième fois donc euh, ça veut dire que ñu ngi ci tànk tànk tànk réussite ko mu nekk jeune ambitieux ba bëgg a dee euh, indi benn markam t-shirt di si liggéey mais social la woote. à chaque fois day woote ay ndog mais ren mu choisir euh, hôpitaux yi la ngay dénk mu xaar parce que lii muy def nii yombul. waaw mu mu continuer si rek mu continuer si rek parce que comme laa di sama collègue bi léegi rek parce que tey déjà fii am na fi malade yoo xam ne ñu ngi tëdd si biir déjà pour ñu matale seen ay ordonnances ça tey ji nga ñëw ba ndog di bëgg a jot nga indi leen ndogu xaalis boobu ñu naroon jël di ko jënd ji yeen ndogu man na dem jënd seen ay garab ah donc ñun dañ koy ñaax rek mu continuer dans ça. ah parce que tey jii ni jàppal ni am na ñu mu jëndal ordonnance joxu leen xaalis bi directement mais ndogu bi mu leen jox rek ñoom mën nañ loolu li ñu naroon jënde ji ndogu noonu dañ dem ñu jënde ji garab donc loolu c'est une bonne chose on on on les ñaan mu continuer dans cette lancée directeur bi nekk hôpital Isabelle ba ma ko dékkee sama micro nee na am na ñoo xamante ne am problème sax ordonnance waxatuma la ak ndogu euh, mu wax nag lu rafet euh, daal di woo jeunes yi nga xamante ne comme yow dañu ambitieux waaw parce que tey am na koo xam ne noonu am problème pour ordonnance boo ñëwee jox ko ndogu tey xaalis bu mu waroon jëndee ndogu tey bu loolu lay jël jëndee waat ko ordonnance kooku kon maanaam kon jëndal nga ko ordonnance te joxoo ko xaalis mooy li docteur bi wax rek mais sant yàlla bu baax rek. Ah, ma léegi pareegu ma ndax su ma paree aussi bu déwénee damay defaat lu raw lii dinaa dem ci région yi dem ci dëkk yi lool nga ñu wax léegi. waaw ñun loolu mooy suñu mébét daal déwén incha allah bëgg nañu fekk si ñeneen si àll fépp dugg fee ànd ak équipe beeg ñëpp maa ngi sant bu baax nag di waa Médina waa Fass Gueule Tapée waa wéetoo si benn yoon de ndax jigéen ñi waa Chamboulé xale jigéen ñi accompagné nañ la góor ñi tam aussi accompagné na la lii yombul parce que woote nga nag ñëpp wuy si la ama seen fay bilaay walaay maa ngi sant ñëpp ñoom Maam Fatou borom kese bon traiteur ñoom soora ñu togg xam nga ñoom bu ñu xëddee ba léegi ñu ngi si togg bi ak yaay Maam Fatou ñoom ñëpp bilaay walaay sama ñoom yaay ñoom Nabou Fall ama seen fay gaa yëpp ñoom Fallou Tall ñi nga xam ne waaw dañoo xaw am jàpp su ma limee damay juum maa ngi sant ñëpp di sant Mamar Gueye bu baax di sant sama grand Asmaric maa ngi sant bu baax ñoom Papa Laay gars yëpp képp koo xam ne jël nga sa dërëm dugal ko si bés bi maa ngi lay sant bu baax di baalu ñëpp ak si weeru koor bi di baaluwaat ñëpp ak ñun ay xale lañ rek ñu dara dañuy jéem rek. lañ mën a xaaraat si mu xaa waa ñuy xaaraat rek incha allah yaakatul dara. Sorano bi moom gi guichet fermé nga ma waxoon ne te am na lan lañ mën a xaaraat yeneen événement yooyu tëgg. waaw staff bi ngi fi ñoom lu ñu wax rek man loolu laay def ma ne man maa ngi dirigé am na ñoom bu ñu waxee rek man loolu laay génnee. merci beaucoup. waaw di sant ñëpp bu baax a baax di gërëm waa Ndakaaru di gërëm sëñ Axma Mbacke bu baax maa gërëm. sang bi gisuñu ko de moom gisuñu ko te danga ma waxoon sang bi day ñëw man fàtte naa loolu sax. waaw sang bi cant yi la rek moom cant yi ko téewoon yi mu newoon déema quoi mais maa ngi sant ñëpp waa presse bi ak ñëpp média bi di sant ñëpp di sant monsieur le maire nag Abdou Aziz Paye maa ngay sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla ren yéen bii nii mu yegal ko jàmm waaw moom borom baax la bés bi jàpp na si bu baax a baax nag Abdou Aziz Paye maa ngay sant bu baax sant Momar Gueye di sant ñëpp bàyyi ma kenn